lu waay gàtt dégg dégg noo dégg na Marie Bazin ci Brescia ku takkale sénégalais yi ak jëndi bagage ba Sénégal muy xee ñu ne ma xanaa Marie Bazin waa ku leen jaay qualité ak originalité ñu ne ma Marie Bazin dong amul keneen mari bazin ma nga ca tissu yu baax ya te am qualité mari bazin ma nga ca vaisselle ya mari bazin ma nga ca pot de fleur ya ba ci produit cosmétique yi lait de corps yi parfum de classe ak lu ju xajam ji te am classe di wër ci xew ay xeetu ànd yu baax ak muy ànd waa man dama jommi man say xeetu boolu tegle rek say xeetu verre yu sophistiqué ñu dama jeeg bu ma accompagner ci Brescia non félicitation rek lay dégg waaye noonu lépp lu jéeg soxla ci biir waañam lépp lu jéeg soxla pour dund à la sénégalaise doon jéeg piir di def say xeetu baax baax ñu ne ma Marie ko ci réew mi waaye boo fi duggee noo dootoo namm Sénégal benn yoon waate yemu ci yooyu nag yi xeetu tissu ay gés neer yu toj ay xeetu waa waa pirxe li de xanaa moom la ñu wooyee pirxe original ñu ne ma qualité pure et dure la kay sénégalais yi ci Brescia bu évét boo jotee seen xel ci Marie Bazin lay dem ndax nag moo leen tàqaleeg yóbbante jëndal ma Sénégal ba Marie Bazin yegg see la jeex ci réew waa Marie Bazin lii lan la say xeetu waa yëre yi nag bu demoon noonu lépp bëgg sénégalais yi bi te nag attention ma sàcc wax leen le 19 octobre ça sera un revêtement ndax Marie Bazin dafa war a def l'ouverture et l'inauguration de sa nouvelle boutique ah oui Marie Bazin dafa ñëw pour ubbi leen boutique bu mag a mag a mag waa Marie Bazin nag foo jëm ak sénégalais yi ci Brescia li ëpp na non yow kese dong yaa ma attention Marie Bazin présente l'ouverture et l'inauguration de sa nouvelle boutique waa li ëpp na nag mu ne ma léppi Sénégal ma andi ko le 19 ak surprise yu ma leen xesee dama bëgg sénégalais yëpp ñëw ñëw fêter l'anniversaire son incroyable anniversaire ba pare ngi fii ci via César Batisti 97 25 038 Robato Brescia wala ngeen jokkoo ak moom ci 388 391 10 11 fal jariñ nga noo ci 34 mi Brescia na matuñu Sénégal de ñu ne ma ndax Marie Bazin tongu na ndax lépp andi na ko ba seeni tool bañu ko ne sëriñ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 di gën a feddali kóllërinte gi di leen ñaanal di sàpp ci yéen ñaan di ñaan suñu kàddu yi fekk leen ci jàmm di ñaan fu jullit mën a nekk ak képp ku ñu tooñ yal yàlla delloo tooñam di ñëwaat ak yéen tey ci xibaar yi nga xam ne ñooy ñi fi dikkal ci dernière vingt quatre yi mu jëm ci li nga xam ne mooy situation bu doy waar bu catastrophique bi nekk ci Gaza waaye également fii nga xamante ne ni moom mooy euh, Palestine donc mu nekk euh, ay mbir yu doy waar nga xam ne bëgg nañ leen ci dikkal ci xabaar yi nouvelles yi ak télégramme yi muy barqiyaat yi defaale ci ay commentaire ak i analyse euh, incha allah donc ci tomb yi ñuy bëgg a wax bokk na ci ministère de la défence ak bu état-major général des armées bu Israël bi ñu attaqué démb ak ay missile nga xam ne gisuñu dégguñu jékki-jékki rek mu ne pof seen kaw loolu nag jaaxal na leen trop trop mu nekkaat troisième maanaam point stratégique boo xam ne ci Israël Hezbollah ay drone am ak missilam àgg nañ fa gannaaw bi ñu àggee ci néegu Netanyahu ak fekk leen ñoom généraux yeeg officier supérieur yi ñuy reer ñu laal leen foofu ci Haïfa bii nag mooy troisième boo xam ne daanaka neenu lu muy am ci àdduna bi buñ fa jógee dinañu def euh, présentation missile bi nga xam ne moo leen dal démb te kii di Hezbollah euh, doog ko utiliser pour la première fois pour ñamal leen ko foofu aussi dinañ wax ci brigade Golan bi Golani bi nga xam ne moom la ñu gën a yaakaar ci force spéciale bu Israël euh, démb mu perte di set ci ay euh, soldats yoo xam ne bilan boobu moom Hezbollah moo ko joxe ce qui veut dire que ni euh, ñeneen ñi daw nañu dem parce que daf ci aussi ay blessés ñoom it dinañ joxe seen bilan donc loolu mu nekk lourde perte ci ñoom. ñu wax aussi ci émirats arabes unis dafa proposer Trump plan boo xam ne militaire escalade militaire pour tas'id askari pour gën a attaquer maanaam Yémen loolu aussi nekk mbir mu grawati gis ngeen rôle ak également Trump mi nga xam ne boo ko dee seet depuis bi mu commencé léegi ñi muy nommé ñëpp ay sioniste lañu donc il faut se préparer en conséquence donc Euh, ku la na dinaa la dóor wala dinaa la euh, jël sa bakkan préparé jaasi ak ay semmiñ ak yooyu yëpp nga ne toog da nga koy xaar ne ko waa baax na kooku c'est parce que comprendre fi mu jëm ak également euh, Russie li nga xam ne mi ngi commencé di gën a maanaam joxe position muy gën a clair entre contre Israël waaye aussi pour faral li nga xam ne moom mooy Syrie mu nekk loo xam ne lu ama am solo la donc tey bu ñu dee wax euh, ci li jiitu ci information yi nga xam ne mooy euh, telegram yi mooy benn groupe hacker bu iranien bu tudd Handala ci jëm boppam dafa piraté porte portable Gadi Enzenkot euh, Gadi Enzenkot nag xam ngeen ne ancien chef d'état-major la woon mooy fondateur u cybersécurité commande même ci wàllu dimo na ak yeneen yu demee noonu yi nga xam ne ay sécurité la yooyu yëpp moom moo ko yoroon mu nekk député ci keneen set bi nekkoon ak euh, Benyamin Netanyahu waaye mu gedd génn waaw biñ ko jëlee nag jël nañ ci moom ay euh, lu baree baree baree bari ñi nga xam ne aussi ki nga xam ne waxoon naa leen ko moo yor wàllu sécurité wu central nucléaire bu Israël moom it euh, iranien yi parvenir nañu pour euh, attaquer ko jël euh, maanaam données yi nga xam ne yëpp moo nekk ci portable am mais ki ci gën a grawle mooy le ministre de la yu Yoav galan moom moom relation boobu mu amoon ak secretaire bu góor bu Netanyahu ci biiram moom la iranien yi fexe ba génnee vidéo yooyu nee nañu sax boo xoolee ci net bi buñ ko supprimer wul Euh, di nga ko gis góor ak góor ñuy def naka sa nudul noonu moo tax àndalaa ci jëmu boppam nee na euh, centre d'espionnage bi nga xamante ne ni moom la euh, yor moom ci jëmu bopp lu mu détenir plus de soixante dix hauts responsables yoo xam ne israélien lañu ay kilifa israël lañu seeni conversation waxtaan yi ñu doon def ak ñoom ci seen jëmu bopp. ak seen voyage yeeg seen communication document yëpp mi ngi groupe hacker iranien boobu waaw moo tax xam-xam am solo donc euh, euh, euh, ñoom ci seen jëmu bopp dafa dañu ne ñii di Likoud muy ñoom Benyan Benyamin Netanyahu ak ñi ànd ak moom ay dof lañu waaw waaye il est temps que ñu wone seen véritable identité pour wax ne ñii dañoo dof waaw moo tax euh, fii nga xam ne mooy bureau Netanyahou ñoom it ñu ngi ciy am information direct comme bureau maanaam Sara Netanyahou parce que soxnaay Netanyahou daanaka moom mooy xoj Netanyahou même xaalis sax bu ko Netanyahou soxlaa soxnaam si la koy la koy euh, laaj donc mu nekk source hébraïque yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ci euh, journaux israéliens yi beneen bi xam ngeen démb euh, ba tey Hezbollah dafa lancé missile boo xam ne boo xam ne bu bu musula am mu lancé ko ci benn société des industries d'armes militaire muy IWI boobu mu nekk loo xam ne ak cible boo xam ne bu doy yàqate usine bi yëpp waaw loolu nag mu ngi utiliser missile bu tudd Nasr 1 waaw waaw nga xamante loolu ñu ngi koy utiliser ci maanaam bataille rapprochée yi waaw xeex yi nga xamante ne dafa jege donc beneen ci beneen wàlla ci eh, opération boo xam ne bu rëy la euh, euh, euh, industrie militaire boobu nga xam ne moom la ñu visé par la Hezbollah moom dafa nekk compagnie boo xam ne dafa nekk ci Ramat Hasharon ci banlieue Tel Aviv seen capital bi ak ay mu ànd ak ay missiles yoo xamante ne ni ñoo ànd ak moom di ko gunge ba agsi foofu nga xam ne moom mooy fi mu war a dal ci société boobu pour war koo faagaagal foofu nag société boobu nu ko xamee woon bu njëkk ba mu ngi tuddoon euh, division des armes légères de l'Israël military industries im ak IMI tu donc mu nekk loo xamante ne ni euh, lu am solo doon fabriquer ay arme yoo xamante ne yu am solo yoo xam ne Euh, dañ ko doon def ñu ngi ko defaroon nag usine boobu xam ngeen britannique yi depuis 1933 waaw ñu privatiser ko jaay ko ay ñoo xam ne ay privé la ñu euh, en 2005 léegi nag mu bokk ci euh, filiale boo xam ne groupe Sky 1 donc iwi moomu xam nañ ne ci wàllu armement def ci xarale lool ak yi nga xamante ne ni daf ci dafa am doole mu di ko jox nag ki nga xam ne moom mooy euh, armée israélienne donc ak agence militaire yi nga xamante ak sécurité yi nekk ci monde bi yëpp dañuy jënd ci moom donc euh, seen produit yi nag yi gën a célèbre mooy le Galil ak le Tavor ak le Negev ak le euh, Jéricho 941 donc loolu lu am solo la combattant yu Hizbullah yi nag dañ ko ciblé pour la première fois pour laal ko moom sax yaakaaroon nañ ne fàtte nañ ko wala gisuñu ko hut-hut gisu ko waaw Moussa Njumri eh, gisu ko waaye en cent dix kilomètres la ci frontière am Liban ak Israël muy Ramat Hashason mu nekk périphérie bu Tel Aviv eh, eh, moom la ñu def démb am na aussi présenté faad yi beneen missile boo xam ne bu génn la démb mooy faad yi 6 boobu dañ ko plus euh, première utilisation bi démb la waaw caractéristique diamètre bi 302 millimètres la poids ogive bi bi nga xam ne mooy bopp bi tey def explosif boobu mi ngi nekk 140 kilos téeméeri kilo ak ñeent fukk poids total bi 650 kilos la maanaam euh, genn wàllu tonne ak téeméer ak fanweer autonomie bi mu am deux cent vingt cinq kilomètres mën na ko naaw sans bañ a am problème parce que missile sol-sol la tactique boo xamante ne ni dañ koy utiliser pour bombarder ay zones yoo xam ne dafa am euh, euh, euh, nga xam ne doo mën a faible marge d'erreur lay lay lay am waaw donc mu nekk loo xamante ne ni dañ koy def pour étendre gën a yaatal li nga xam ne mooy portée wu opération zone profonde yi mu nekk loo xamante ne ni. lu am solo missile boobu nag comme première fois lañ ko doogee utiliser démb euh, moom ci mën nañ ko tiire ci à partir des plateformes fixes wala mobile wala mu ci oto wala yoo xam ne dañ koy fixer nii te dafay maanaam combustible maanaam li koy waqut bi li koy euh, essence bi comme bu buñ ko waxee dafay nekk euh, solide composite donc mu nekk loo xam ne lu am solo ci beneen wàlla loolu am na solo trop ñu koy ñu koy continuer ci contre Israël jaamu yàlla la donc euh, démb aussi ak tey fii di siège yu renseignement militaire muy huit mille deux cent wala huit deux cent ci euh, fi nga xamante ne mooy ci Tel Aviv Guegueliot foofu aussi à cent dix kilomètres ci frontière bi laal nañ ko laal yu wóor encore par la amaan nekk ak Mossad ak euh, waa Shabak donc mu nekk loo xam ne lu am solo ciblage yooyu nag maanaam fit yooyu nga xam ne dañ ko jubale ci fi nga xam ne mooy banlieue bu Israël bu Tel Aviv ak euh, loolu dafay wone euh, euh, audace bi nga xamante ne ni moom la Hezbollah am maanaam dëgër fit am bul faale waaye aussi ñeme li muy def di ko def avec précision ak ay dóor yoo xamante ne ni dañuy jàpp ne boobu la maanaam bu ñu bëggee dóor fii Euh, euh, un kilo un kilo la ñuy yóbbu te da fi ñu ko bëgg mu dal presque à peu près cinq mètres lay lay lay bu naree foofu ba foofu ci cinq mètres dina dem cent dix kilomètres xam nga loolu nag mooy xam-xam dëgg mu nekk loo xamante ne lu am solo waaw donc euh, xam ngeen ne Hezbollah du ñu jël ay décisions nii comme ça comme ni ma leen ko yàgg woon waxee ci bippeur yi ma ne leen non ñii seeni décision dañ koy jël avec maanaam froideur du ñu yàkkamti dañuy ànd ak sago même bu doon àdduna bi doon tàkk sax dinañ ànd ak sago parce que doole nit moom mooy sagoom cent fois nga xamante ne à toute devant toute épreuve maanaam jafe-jafe fu mu am rek du euh, euh, euh, mën a du ñàkk sago ala sabru fi sadamatil ula comme ni ñu koy waxee mooy muñ mi ngi nekk ci première choc bi waaw première choc waaye da nga koy gis xam nga baax ak baax baax lu du benn boo nekkee comme suñ ñun suñu mbokk sufenke yi comme ñun am na ci ñoo xam ne bu ñu àggul léeg-léeg boo leen bettoon nga rëkk leen bala nga pes leen ñooñu bu dee ko àgg dala day day mën na la gestu nii rek maay du la faale waaw comme ni ko ibadu rahman lazina na comme ni ko aaya bi di waxe ne boo leen euh, euh, isa xaatabahumul na qaalu salaama kooku mooy ki àgg waaye ki nga xam ne àggul moom mi ngi ci yoon waaye mi ngi koy prétendre di di wax ne mi ngi ci moom boo ko ne ko tey li muy njëkk mooy damay ba pare doo ko wax astaghfirullah astaghfirullah yàlla maa ngi jégalu tu vois donc euh, euh, euh, looy def rek li ëpp doole ci nit mooy sago moo lay jox fit moo lay jox fulla moo lay jox fayda moo lay jox valeur moo tax mu nekk loo am solo ñoom lu ñu mën a def nag ñoom taalibe yi dañ koy calculer calculer conséquences yi moo tax fu nekk fan la ñu war a dóor fan la ñu war a bàyyi moo tax dóor yi ñu dóor démb dafa am dimension politique lu tax mooy ne euh, euh, galaan euh, kii di galaan waxoon na fii cinquante pour cent ci armement wu Israël Hezbollah jeex na ak missile yi wax lu mel noonu jamono yi avant muy dem mu répété waat lu mel noonu seen généraux yi ak yooyu chef d'état major ne léegi c'est fini léegi Hizbullah lu muy war a dese ay vingt pour cent lay doon léegi nag moo tax gaa ñi seen jëmu sax dem ba opinion publique israélienne di leen wax ne waaw mais yéen yéen a ngi wax loolu te tey euh, euh, missile yu bees la gis arme yu bees la gis audace bu bees la gis fi mu ki nii exode bu grave ay des millions de personnes ñu ngi ci suuf yéen a ngi ñii doon ñu wax naan nañu dem ndekete <laughs> yéen ci seen jëmu bopp xam ngeen ne loolu amul da ngeen ñuy fen tu vois da ngeen ñuy fen ne wala euh, pacifier ngeen ci kaw au waaw loolu di ñu nax waa donc yéen li ngeen di gis ak li ñuy gis ñun du benn di ko dund fi nekk nii am na un an quelque kenn ñemeetul dem ci këram donc ba pare ngeen di ñu wax naan ne yéen dominer ngeen ñoon loolu lu doy waar la loolu moo indi sax euh, ak accentuer dimension politique bi parce que xam ngeen arme bu ñu utiliser rek ci guerre maanaam dafa am répondant politique ci wàllu politico diplomatique pour wane ne ñu ngi leen di duma parce que li ngeen di wax seen opinion ne yéen a ñu dominer suñuy arme jeex na tey la waalo gën a aay te dinañ leen surprendre moo tax kero bi nga xam ne la ministre démb bërki démb le ministre des démb démb la le ministre euh, euh, de la défense muy euh, Euh, Israel Katz commencé na wax ne voilà euh, ñun ci suñu jëmu bopp dutuñu arrêté lu dul dañoo euh, maanaam désarmer le Hezbollah jël ay armam téye ko bu ko defee ñu doog a wañ loxoom ci la ñuy doog a arrêté guerre bi ku gis image bi ñun ñu ngeeg image bi parce que yii yëpp da c'est documenté mooy ne dafa bi mu waxee loolu rek le chef d'état-major général daf ko xool nii commencé wokk bopp bi xam nga xool ko xulli ko ne ko yow dafa mel ni comprendre lu lu lu lu xew parce que bu dee loolu dafa bokk ci objectif désarmer Hezbollah te yow yow mi ngi lay yóbbu laaxara kii di Netanyahu ñemeetul génn waaw ñemeetul génn waaw loolu mu nekk loo xam ne lu grave la ci ci koo xam ne yaa ne yow yaa yor sécurité sa réew waaw yow mënatoo téye sa sécurité bopp lu dul yaa ngi entre soixante dix ak quatre vingt mètres sous terre yàlla mën na de sax mu màbb ko ci sa kaw. looy defati léegi nit ñi ñoo lay fekk si yow dootoo demati parce que li nga mujjee rëcc moom mooy bi nga xam ne à peu près à vingt minutes rek nga ngay agsi rek la bo benn dal foofu nga la let daw dem sa yoon ba pare nga ne yaa yor sécurité euh, nit ñi loolu war na rus nu donc ce qui veut dire que il faut que ñu souligner que résistance islamique bi muy bu Hamas comme muy bu Israël équation bu bu doy waar la te surtout Hezbollah dafa bëgg a neutraliser équation yëpp mooy mu neutraliser Tel Aviv waaw en échange mu maanaam ak mais également euh, euh, euh, li nga xam ne moom mooy banlieue moom mooy Gush Daan waaw te bu ko defee mu continuer di cible yeneen maanaam li nga xam ne mooy villes yi parce que démb rek plus de cinquante et quelques villes Israël kii di Hezbollah laal na ko ñi nga xam ne nag mooy golaani boobu nga xam ne yóbbu nañ leen laa démb te ñu mot ci 17 daanaka boo ko dee jël c'est plus de cent cent dix cent vingt jàpp loolu ci soldats yooyu ci loo xam ne ñoom israéliens yi ñoo wax ne dee nañ ci depuis euh, guerre bi depuis maanaam novembre bi loolu du dëgg ëpp na ko parce que deux division ñoom ci seen jëmu bopp ñoom ñoo wax ne rey nañ leen ñii ñu blessé leen ci te division bu nekk entre dix ak vingt mille lay def nga def ci ñaar muy quarante tu vois au minimum vingt donc war na ëpp dix quinze mille euh, euh, euh, ci ñoom donc lii nga xam ne moom mooy Hezbollah ci déclaration yooyu nga xamante ne nii def na ko nee na actuellement missile bi nga xam ne mooy Nasra 1 moom it beneen missile la bu bees boobu maanaam li ci doy waar. maanaam dafa am manœuvrabilité contre les systèmes de défense aérienne boo dóoree nii sa système de défense mun na ko contourner jëm fële te dafa immuniser wu contre le brouillage rajo brouillage rajo mënul ci moom dara parce que moom GPS la ñuy am yoo xam ne yu bokkul ak GPS international Iran ak ay euh, Proxim loolu la ñu euh, euh, def ba nga xam ne système GPS wala de brouillage électronique yu mondial kooku munul ci moom dara muy OTAN ak yeneen yu demee noonu moo tax missile boobu 14 euh, 9 euh, octobre bi 2004 lañ ko commencé moom it di ko xool waaw di ko saytu utiliser ko nga xam ne diamètre bi 300 euh, millimètres la ogive bi dina jël 100 kilos téeméeri barigo maanaam dina jël barigo te mën na daw ba 100 kilomètres am autonomie donc loolu day wane ne Hezbollah mi ngi dugal ay missiles yoo xam ne de précision ci xeex bi depuis bi nga xam ne commencé nañ ko song terrestrement maanaam ci attaque terrestre waaw ngeen xam ne euh, euh, euh, mu nekk loo xam ne nag lu doy waar la tey wane ne moom Hezbollah cible militaire vitale yi nga xamante ne ni lu ak lointaine nga xam ne sori am na ko daal l'entité sioniste du jeex parce que déjà presque rek bi nga xam ne Houthi trois dem na te léegi ñu ngi ci 4 ba 5 moom ci jëmu boppam euh, euh, euh, wane na en emplacement wu 130 sites vitaux stratégiques yoo xam ne yu Israël la moo tax tey ñu dee donc utilisation missile yooyu dafa am impact bu am solo boo xam ne di fàttali utilisation missile balistique yi nga xam ne ansaarullah ñoom it ñu ngi koy dóor li nga xam ne mooy rassemblement militaire yi foofu ci ci Israël donc mu nekk loo xamante ne ni am na impact jeexital majeur bu mag boo xam ne actuellement loolu sur le plan géostra euh, sur plan stratégique moo nekk di changer li nga xamante ne ni mooy xeex bi également am na beneen euh, euh, mbir mu am solo ci missile Qadir Qadir 2 moom it aussi ñëw na dugg si ci xeex bi donc euh, muy cible maanaam euh, li tax muy fayu bombardement yi nga xam ne Israël moo koy bombardé sud Liban parce que fayante la sud du Liban da ngay gis mu ñëw ne wala rey na ay cache da ay nit ay cache d'armes mag ay base militaire Hezbollah caché alors que bu ñu fa demee ñëpp dañuy gis ay bic ay ay ay ay kaye ay livre xale ak ay ay ay yaramu xale ñu ñu rey ak yeneen yu demee noonu comme nu muy def Gaza rek waaye fii moom même bu dee Gaza moom mi ngi ñafee te aussi Gaza mi ngi def lu mu man di rey ci israélien parce que amul leneen lu dul ces militaire donc lu mel ni comme Hezbollah Hezbollah mooy magu magu Hamas moom dafay fayu loolu parce que am na maanaam li ñu lay wax nii Hezbollah li muy rey ci civil kenn xamul nu mu toll mais comme ñoom nee nañu dara du dugg ñu génn naan wala dugg na parce que buñ ne dugg na loolu mooy wane ne donc yi doon jàll yëpp jàll na donc faagaagal na leen waaye bu ñu ñamee nañu lever censure militaire bi waaw euh, ne ne ne interdiction euh, euh, ne ne ne ne di génne image yi di ko wane moo tax gisoo même télé télé télé française yi occidentale yi fi mu nekk nii sax bëgg bëggatuñ ci wax duñ ci sawar ci leneen la ñuy wax waaw ci leneen la ñuy wax même Atago li nga xam ne mooy chef de état major général bi ak ministère bi daanaka presque ñenn presse yi black out total lañ ci def waaye amul benn problème waaw amul benn problème essentiel mi ngi àgg ci ñun te xam nañu ñoom mi ngi àgg ci ñun parce que ay fenkat lañu ñoom waaw du ñu ay nit ñu baax ñu ay nit ñu baax donc loolu nag loolu day wane aussi que ne kii nga xam ne mooy xizbullah mi ngi yaram bi tàng na te eh, eh, eh, incha allah fas yéene leen faagaagal waaye nag bu ñu xoolee ci média israélien yi nee nañu brigade bi ci gën a mooy golaan nii parce que mooy force spéciale bi nga xam ne moom la ñu doon yaakaar moom ak IGOS waaw tu waaye ak ak ak euh, kii euh, IGOS c'est ça donc ñooñu rek depuis ci attaque terrestre bi nii ñoo ñook Hezbollah Hezbollah rey na ci ñoon presque entre cent dix cent vingt waaw yoo xamante ne ni depuis guerre bi Hezbollah nag tey. Euh, Euh, comme ni ngeen ko xamee démb dafa laal siège ministère de la guerre waaw nga xamante ne ni bâtiment bi dafa am souterrain ci suuf parce que foofu la ñuy daje euh, euh, waxaguñu li nga xam ne mooy dégâts yi mais yooyu dina ñëw parce que Israël dafay nëbb dégâts yi mais bu ñu sàgganul surtout médias occidentaux yi américain yi surtout léeg-léeg ñooy jékki-jékki rek def ay maanaam reportage indi seeni satellite wala yooyu rek wan la li li xew mais Israël démb ñam na loo xam ne amul benn pays ci guerre boo xam ne dem nañu ba mën a attaquer ni ce kii de défense ministère de la défense en même temps chef d'état-major bi nga xamante ne ni fala lépp nekk donc mu nekk loo xamante ne ni euh, pour la première fois euh, euh, mu mu mu am aussi mu am pays musulman arabe bu mës a àgg fii ak Israël waaw parce que sinon Iran ci jë euh, maanaam euh, pays arabe yi li ñuy tàmm gis ci ñoom mooy six jours de guerre ñu duma leen fëgg seen liggi rey ci ñoom ñu bari ñu tas comme toujours loolu moo tax ñu ragal Israël Israël jël seen fit waaw jotu ñu mën a euh, xoolaat lan mooy tax seen guerre mu ñu leen di duma parce que les pays Israël ki arabe amuñu stratégie loolu mooy problème par rapport à la Turquie par rapport à l'Iran ñoom amuñu amuñu stratégie waaw ñoom dañ leen di noot rek dañ leen di noot parce que loolu la ñu tàmm parce que fit bi moo fi nekkul waaw fit moo fi nekkul gor da nga war a am fit julit da nga war a am fit waaw bu la ñàkkee nag kooku mu nekk problème cent étudian ci entreprise bu Leonardo ci ville Italie Turin euh, ci seen jëmu bopp dañu accuser euh, maanaam société boobu muy entreprise Leonardo ne dafay yóbbu ay pièces de rechange ak ay outils techniques ci armée de l'air Israël mooy lépp loo xam ne aviation la bu ko defee ñooñu di jël loolu euh, avion yooyu di dem di engagé li nga xam ne mooy di rey ci Gaza ak yu demee noonu loolu duñ ko ànd duñ ko nangu donc dóor boobu nga xamante ne ci beneen wàlla euh, moom la ñu dóor euh, brigade Golani démb nga xam ne 17 dee nañ ci ak eh, près de quarante cinq eh, quarante trente cinq entre trente cinq ak quarante blessés graves loolu nag eh, mooy brigade cinquante et brigade bi unième brigade bi nga xamante ne ni moom moo ñam dem c'est lourde perte foofu ma wax leen ne brigade boobu bu armée israélienne mooy origine brigade mooy li tudd la cinquième division. bi nga xamante ne ni moo nekkoon depuis 1948 ba 1940 56 parce que xam ngeen armée israélienne sature bi ay terroriste lañu groupe terroriste isaaba ay isaabaat lañu c'est des bandes des gangs lu mel ni Haganah lu mel ni Stern lu mel ni Palma tu vois et cetera ñoom ñoo doon sonal les britanniques léegi nag bi ñuy defar armée israélienne bi ñu ñoo ñëw te aussi ñooñu ñoom ñooy ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy les terroristes donc gis nga. même chose même comportement terroriste moom la ñu yor cette armée israélienne donc euh, euh, moom euh, brigade boobu Golani après lañ ko transféré mu tudd brigade Golani waaw nga xamante ne ni bataille yëpp depuis 1948 mi ngi ci bokk te arab yi la doon xeexal te moo mun arab yi arab yi boo ne Golani rek balaa nga ne goo sax boo moytuwul départ nañu fëx départ moo tax en 1995 la njëkk a mbëkkanteeg xizbullah xizbullah rey ci ñoom euh, juróom-ñeent ci ñoom sax seeni seeni seeni seeni bilan donc ak commandant bi nga xam ne moo nekkoon euh, ci kanamam en 2006 ci bay bayti jibeel bint jibeel xizbullah rey euh, maanaam juróom-ñett ci ñoom ak commandant adjoint bi gis nga donc yàgg nañu ñamante moo tax boo ne ñoom it xisbu rek boo ñu mënoon am fu ñu aw dañuy daw donc démb aussi gis ngeen di 17 ci ñoom ñu rey leen donc euh, brigade boobu mu nekk loo xamante ne ni lu doy waar la Izzudil Qassam muy bu kii di euh, Hamas euh, ci 7 octobre 2023 maanaam rey na ci 30 soldats yoo xam ne ci officier wu brigade boobu la jaarama Hamas donc ci décembre 2023 résistance islamique bi muy muy muy Hamas rey na ci ñoom aussi euh, lu mat neuf soldats yoo xamante ne su sujeya ci ci ci ci Gaza donc euh, ci novembre bi 2024 bi ñu nekk euh, fi mu nekk lu jiitu yi Hezbollah rey na ci six ci ñoom ñoo xamante ne ni ak ay officiers yoo xam ne ci combat bi nga xam ne mi ngi koy mëne ak ñoom donc gis nga donc ñi Hezbollah dafa jël seen fit ak xamaas donc perte yooyu nag dafay wone maanaam perte yi de illustre maanaam li nga xam ne mooy lourde conséquence yi nga xam ne brigade boobu mi ngi ko am te fi mu nekk nii mu ngi ko jëlee ci xeexu Gaza ak xeexu ak Hezbollah ñooñu euh, du ñu seen liñ naan euh, cereeg soo xamu cereeg meew euh, ñeexu ñebbe du ñu seen ñeexu ñebbe donc mu nekk loo xamante ne ni lu doy waar la donc démb encore ci beneen kii bu ñëw ne depuis 1948 fi nga xam ne mooy base Kiryat nga xam ne moom mooy quartier général armée israélienne depuis 1948 lu mu ñam ñu tuddee ko campus li mu ñam mosu ko ñam parce que ak le chaise de la défense ñaari yoon la ñëwaa ah, démbo Hezbollah dafa ñëw duma ak euh, euh, li nga xam ne moom mooy drone drone bi kenn gisu ko mu dóor ministère de la défense mu ñëwaat ak missile boobu ma wax sànq mu ñëw missile bi aussi kenn gisu ko kenn déggu alerte précoce ni euh, euh, retardé amul mu ñëw ne pëgg ci ñoom loolu nag lu leen jaaxal la donc moo tax euh, kii nga xam ne moom mooy ci communiqué waxoon nañ ko sànq mooy Hezbollah nee na ñam ngeen tey ñam boo xamante ne ni musu leen ko am parce que xam ngeen ne mooy siège ministère de la défense waaye aussi centre de commandement des opérations de guerre ak aussi l'autorité de contrôle et de surveillance de l'armée de l'air israélienne donc gis nga xoolal ma centre bu névralgique bi nga xamante ne bu sensible bu important bu stratégique bi bu Israël tey Hezbollah mën a dal ci moom dafa mel ni rek nga yor maanaam ko euh, doon dóor nga nga nga mën ko dominer ko jàpp ñaari loxo yi jàpp ñaari tànk yi yëpp nga yeew nga yor sa yet wala sa sa sa sa sa kàcciri yaa xam noo koy tuddee di duma di duma muy bu dee wolof la naan way yaay bu dee pël mi naan mi yi donc mu nekk loo xamante ne ni lu ama am solo day wone maanaam hizbullah ci kattanu sunu borom bi qudratillahi wa azamatihi tey mi ngi dominer ki nga xam ne mooy euh, euh, Israël euh, ci ci ci ci ci sur le terrain donc moo tax ci ay base yoo xam ne yu amos yoo xam ne dafa dafa attaqué rey fu ay soldats yu bari démb aussi yi nga xam ne Hizbullah mooy wax ne entre cent et quelque moo kooku moom mooy ci frontière bi bokkul ak yi muy tëmbal nga xam ne day dem ci biir fi nga xamante ne ni mooy Israël di leen falaal di leen faagaagal donc gis nga mu nekk loo xam ne lu ama am solo ci beneen wàlla ci nouvelle Iran euh, jëlee nañu ki nga xam ne mooy Ali Larijani muy conseiller principal guide suprême bu révolution islamique bu Iran nekk membre du conseil de discernement d'opportunité wala wala des intérêts de la république islamique d'Iran tey dina dem Damas Damas waaw kii nag dafa nekk nit ku baax euh, nekk président assemblée nationale bu Iran xam bu baax les intellectuels sénégalais contribution yi ñu def pour les causes islamiques waaw parce que ci exemple Soudan Soudan en 2010 bi ñu sonalee euh, Al Bachir Euh, naan dañu koy euh, yóbbul cour de la xawma euh, CPI en même temps ne dañuy dagg le Soudan kero bi intellectuel musulman sénégalais yi jógee waa kër Léopold Sédar Senghor yi bi ñu jógee ñëw taxaw foofu ci ci wax ci saa si la la la la président assemblée nationale bi ne dañuy jël décision jël avion dem Soudan pour feddali ki nga xamante ni kóllëre mooy euh, kii di euh, al ak loolu donc mu nekk une solidarité agissante bokkul ak bu Arabie Saoudite bi nga xam dañ ko def rek comme spectacle bu ko defee mu mën ko mënuwaaye ak les nouvelles autorités américaines ñàkk ci jom ñàkk ci fulla ñàkk ci fayda donc actuellement boo gisee mu war a dem dafa war a discuter ak moom ci affaire Syrie parce que xam ngeen ne actuellement comme Israël mi ngi sentir ne mi ngi daanu dafa bëgg a internationaliser davantage conflit bi te bu ngeen bu ngeen moytuwul ak nouvel arrivage yu ñoom Trump dafa nar a attaqué Syrie te bu attaqué Syrie kii di Russie dina ko duma te bu boobaa beneen mbir mooy ñëw waaye nag aussi américains yi bu kenn xaar ci ñoom ñu ñëw dugg attaqué Syrie parce que euh, les les Syriens waaye aussi am na beneen programme mooy Cisjordanie dañ ko bëgg a jël. waaw te buñ ko jëlee kooku aussi beneen problème la parce que dégg ngeen démb ki nga xam ne moo doon le ministre de de la stratégie bu Israël bi mu demee eh, fële ci eh, fii di Russie dafa ne nañu arrêté maanaam armement yi ñuy jël di ko génne ci jël ci Syrie di ko yóbbu ci Liban ba ba ñu tontu ko ne loolu amul dara lu ci am ba kii di ko dankaafu muy attaqué aussi base bu Homaymim bi nga xam ne moom mooy base bu bi nga xam ne moom la Russie ak Syrie bokk foofu ci Damas donc euh, te attaques yi nga xam ne Israël daf koy def toujours Damas dafa bari donc loolu bokk na ci li tax kële dem pour waxtaan ak moom ci situation bi pour ñu mën a jël ay tadaabir ay mesures yoo xamante ne ni euh, euh, de préventive pour en cas d'attaque ci Syrie parce que Syrie actuellement irakiens yi ak yenn ñi nga xam ne yëpp muy muy muy yeneen euh, kii afghan yeeg euh, euh, les pakistanais ak yeneen nationalité yi ñi ngi exa stationné wu foofu stationné wu di xaar ndigal bés buy Ridwaan di génn wala Abbas di ko feelu ñoom ñu ñëw dugg ci donc loolu mouvement boobu moom moo tax ñu dem foofu ba général Salami ci tey manœuvre yi nga xamante ne de combat sécuritaire yu ñu tuddee nasrallah tuddee ko ko nee na isbullah mouvement bu mag la boo xamante ne ni kenn mënu koo eh, dindi tey ci kaw suuf kenn mënul fexe ba du continuer général bi aussi mu wax ne ñun suñu jëmu bopp eh, eh, xam nañ ne bés bu ñuy jàppee Israël dinañ ko duma duma yoo xamante ne ni duma yu leer nàññ lay nekk te duñu ko bàyyi mukk moom isbullah kii di Israël mu dominer musulman yi ba nga xam ne day teg seen loxo di naan ay accord de de de de de de Abraham ak euh, euh, ay remodélage du Moyen-Orient sur le plan géostratégique ak ñu ko ci bàyyi ak yu demee noonu ñun duñ ci bokk ñun euh, waa Iran dinañu fexe ba lépp loo xamante ne ni lu mu def musulman yi la dinañ ko venger wu te dinañ ko duma duma yoo xamante ne ni yu leer nañ te metti lay doon commandant adjoint aussi bi nga xam ne mooy gardien de la révolution moom it ci jëmu boppam keneen la nee na du ñu toléré mukk te duñu musa mus a kenn di attaqué Iran te du ñu fayu réforme fayu boo xam ne day sévère mooy ne sévère bi nga xam ne moom moo war ñëw ñu duma Israël mi ngi ci yoon bi mi ngi ñëw dañuy xaar rek opportunité yi ci beneen wàlla xam ngeen kii di ni mi ngi doon def démb visitam ci Iran mu yor wàllu énergie euh, maanaam organisation bi énergie atomique donc démb dem na Iran ki nga xam ne nag mooy Mohammad Islami moom def na ak moom benn conférence de presse muy Raphaël Grosny wax ko ci biir entretien boo xam ne xam nga affaire diplomatie la kenn du fay tout est même boo boo boo boo xaqataayee wala nga signe tuuti loolu c'est bien xam yooyu yëpp dafa am solo ci diplomatie kenn du fay waaw c'est gratuit donc loolu amul benn problème ngeen ñëw ngeen waxante xam loolu xew na fi waaw bu ko defee ku nekk wax ak sa morom wax bi ngay wax ak moom kenn du mer parce que quelques heures ngeen di def te ngeen di ay kilifa ngeen dem seen yoon après ku nekk yo topp yoonam moo tax moom ci jamu boppam nee na ñoom euh, Iran dinañu topp seen programme nucléaire pacifique gis nga toujours moom la Iran wax parce que officiellement déclaré wu ñu ne am nañ ko mais c'est sûr que am nañu bomb atomique waaw parce que c'est pas pour rien yoo yi nga xam ne wax nañ ko ci tremblement yeeg ak yeneen yu bari yu am ba waa CIA dina dans cinq jours mu am ak yeneen ba euh, kii nga xam ne moom mooy Russie ne dañuy def benn accord stratégique industriel ak stratégique ak Iran donc yooyu yëpp lu muy wundu moom mooy ci wàllu nucléaire bi te Iran mi ngi naan am naa deux armes stratégiques yoo xam ne duma ko génne bés bu ma sentir ne euh, euh, fi mu nekk nii caafa ngi xëm ci laa koy doog génn moo tax loolu moo ragal loo américains yi ak israéliens yi parce que américains yi seen base bi nekk Udayda nga ne moo nekk ci Qatar maanaam treize mille ci li ñu ci li ñu xayma treize mille mais ëpp na ko parce que mooy bi gën a mag ci monde bi waaw kooku Qatar ci réewu jullit foofu la nekk waaw donc mu nekk loo xam ne lu doy waar moo tax moom ci islam yi mu ne décision bu ñu mën a jël Euh, euh, euh, ci ci ci ci contre ñu nag dina am réponse bu rapide boo xamante ne dañ koy danañ ko am moo tax kii di Grossi Grossi nee na état bi dafa am solo ñoom ci seen jëmmu bopp organisation agence de l'énergie kii atomique ñu am ko ak Iran di waxtaan pour éloigner ci lépp loo xamante ne yoon la boo xam ne mën na mën na indi problème mu ne nag espace diplomatique bi nga xam ne euh, pour waxtaan la mun na gën a yombal gën a rataxal diggante yi ba liñ ci euh, euh, yaakaar du am moo tax kii di muqtada sadr muy chef mouvement national chiite bu Irak xam ngeen ko muqtada sadr laaj na suba ci àjjuma ji ne ñëpp yëkkati ay rabo palestinien gannaaw bu jullee àjjuma ba pare ak bu Liban woona aussi ñu brûler ñu lakk ay drapo yu Grande-Bretagne États-Unis ñu lakk ko ñoom it ak Israël donc ñu jëm ci li nga xam ne mooy revue de presse bi nga xam ne mooy ci journaux israéliens yi ak américains yi euh, ci journaux euh, israéliens yi nee nañu Hezbollah actuellement mi ngi commencé di reprendre ses forces waaw jëlaat dooleem dëgg-dëgg ak aussi stock de missile bi mu am nga xool eh, eh, eh, yaakaaroon nañ ne lépp jeex na tey stock de missile boobu dafa nekk missile yoo xam ne c'est des missiles de précision fi ñu bëgg mu àgg foofu la ñuy àgg waxoon nañ ko Netanyahu ne ko ñu day suñu bët fu ñu bëgg mu àgg dana fa àgg suñuy nopp fi ñu bëgg mu àgg dana fa àgg te fu ñu leen bëgg a dóor mën nañ leen dóor moo tax Netanyahu tàqali ko naag sagoom parce que keroog démb biñ ko ne léegi da ngay dañuy dañuy dem ci tribunal bi mu ne moom daal Euh, du dem parce que tribunal bu fa demee dina am ñoo xam dañuy seetaan te mënuñu contrôler euh, ci ñi koy seetaan mooy comme lii xew fii te kooku mën na génn rey ko kii moo ñàkk jom ñàkk fulla ñàkk fayda ñàkk classe yow rey nga ay awliyaullah ñoo xamante ne ni wóor na la ne ñoo la gën bàyyi gën la judd gën la ay maam waaw yow nga jàpp leen nga rey leen parce que da nga leen bañ ñemewoo leen sax taxaw ak ñoom sa armee fi mu nekk nii mi ngi subir doo am fulla ak fayda nga ñëw taxaw même bu ñu la dee ñu rey la waaye nga ne tax du ma dem mel ni comme kooku euh, maanaam nagu euh, euh, nu mu tuddati espagnol bu ñu bu ñu brandir nii chiffon bu rouge ah mu nekk loo xamante ne lu doy waar la ñàkk ful la ñàkk fayda yow neta ñaaw moo tax actuellement mi ngi am problème bu rëy rëy rëy rëy ñu ngi ci ñu ngi jooy toujours ñoomit it média yi rey bi ñu rey waa brigade Golani ñoom daal ñu ngi leen di jaale parce que ñoom dañoo métti leen looloo looloo tuddee nañ ko sax désastre la waaw désastre sur désastre boo xamante ne ni mu ngi dal ci ñoom musiba ci kaw musiba ci journal yooyu jot Ahranot nee na mën na dóor chaque jour euh, euh, des millions de mus euh, d' israéliens mu leen di pousser ñii di daw di génn Israël di daw ñii di daw di toxu ci biir Israël ñii nekk ñaa ay millions nekk ci suuf loolu Hezbollah yàlla dimbali na ko mu man loolu donc ñoom yooyu jot aaronot moo wax loolu donc loolu moom moo wax tax ne yooyu jot aaronot teg ci ne euh, euh, euh, Israël dafa war a xoolaat ay mbiram maanaam réduire ses exigences waaw waaw mu xoolaat ay mbiram ci devant Hezbollah moo tax groupe de dof boo amee ay noonu dof ça c'est très bien parce que noonu gis nga noon bu dee kooku jaratul bàyyil mu dem noon bu dof bàyyil mu dem noon buy tooñ boppam nga xam ne la day sàq sabam bàyyil mu dem noon bu ñàkk mënalu la dara lompoñ bàyyil mu dem léegi nag actuellement ñun actuellement musulman yi noon yooyu la ñu am muy te ki leen jiite mooy Benjamin Netanyahu ñëpp ay dof lañu waaw gis nga ci média Israël nee nañu Liberman gis nga Liberman Avigor Liberman xam nga lan la proposé nañu proposé maanaam euh, euh, pour que euh, maanaam un plan boo xamante ne dina ñu mën a régler bataille Liban naka lay demee muy établir benn barrière sécuritaire boo xam ne quinze kilomètres lay nekk yu ñuy puus ba biir Liban nga xam ne kenn dootul déggati Hezbollah nga xamante ne kenn du ko mën a mën a mën a dugg xoolal ma loolu yow ñu ngi leen di bëgg a yóbbu laaxara fi mu nekk nii da ngeen doon da ngeen demoon gannaaw kër yor tuuti ndox ngeen war a setal te bu ngeen laalee fépp nekk set nekk tilim léegi loolu moo leen jàpp yéen waaw dootu am dootu leen mën te da ngeen di tilim fu ngeen am ñu ne hunhun loolu moo dal actuellement Israël moo tax Lieberman wax boobu nekk wax bu bu yàqu gaa ñi nga nga xool ci biir loolu média israélien nee nañu Lieberman ci jëmu boppam euh, euh, euh, nee na ci barrière sécur sécuritaire boobu sax muy wax lu muy proposé sax nee na cinquante ba cent ans kenn dootu fa duggati ci ci libanais xam nga kii dafa jobal ah, nekkatul nit moo tax média israélien yi nee nañu ki nga xam ne mooy ancien combattant bu corps nord bu armée israélienne muy Naam euh, Tivon nee na actuellement banu Israël euh, ban euh, banu banu banu Liban suuf si ban bi mi ngi nekk mujj na nekk nag loo xam ne fa la nag nar suux moom ci jëmu boppam moom nee na man damay mooy damay daw sax balu banu Liban pour bañ Eh, eh, eh, taq suuf waaw waaw donc donc mu nekk loo xamante ne lu am solo mu ne actuellement ñu ngi gis ne Hezbollah mi ngi rëgg maanaam redressé wu ak doole l'Israël ci lu mu nekk ci fen la waaw li nga xamante ne ni moom la wax teg ci mu ne Israël accomplir na li nga xam ne moom mooy li Israël wax ne accomplir na que dara ju ci dëgg te Israël li mu mun lu woon régler démb tey du ko mun parce que tey la dooleem gën a eh, jeex Israël nee na moo tooñ à tort ci réglement boo xamante ne ni waroon na ko def mbir mu jeex defu ko actuellement nag dugal na Israël ci économie boo xam ne bu doy waar ak ci économie de munition waaw maanaam eh, arme yu mu amoon mi ngi jeex loolu la Hezbollah xam ak Hamas moo tax ñu soxlawuñu négociation dañuy dem ba jusqu'au bu yow amato soldat yu ànd ak yow say munition mi ngi jeex yaa ngi def économie de munition surtout hiver bi nga xam ne sedd bi gis nga foofu ay montagne la sud Liban dem naa fa ay yoon yoon foofu ñuy xeexe gis nga gis nga hiver bi ay neige lay doon israéliens foofu la ñu nar a empêtré loolu mooy problème bi gën a mën a aléa de la nature bi gën a grave ci ci Israël donc bu ko defee de foofu lañ lay fekk fiir la bu baax a baax a baax comme nga mel ni jinax bu ñu fiir donc nekkul ci Israël euh, euh, moom la ki nga xamante ne ni moom mooy commande ancien commandant euh, comme nord nga xam ne moom xam na zone boobu fa lañ ko yóbbu woon mu ne ñuy empêtré wu di sombre ci bu libanaise boobu donc loolu warul nekk lu am ànd ak xel ci beneen wàlla ci canal 12 nee na quatre-vingt-dix hôtels comment licencié nañu ay milliers de travail depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui Euh, ci canal 12 nee na euh, euh, juróomi hôtel yoo gis benn bi tëj na donc ci biir Israël kooku ñaw lu am solo la noonu mun a tëj ci Israël Ziv nee na moom ci jëmu boppam lii nga xamante ne ni moom la gis moom mooy ne actuellement Israël mi ngi fay un prix fort ci terrain yi nga xamante maanaam ci li nga xam ne moom la moom la dugg foofu donc donc. waaw te nag terrain bi du xaar Trump bu dee moom la eh, kii di mu teg ci ne bu dee Netanyahu tromp lay xaar mu ñëw mu sobe ko loolu jeexagul de waaw loolu jeexagul dinañ leen duma New York Times eh, eh, nee na ci ci enquêteur yoo xamante ne ñi ngi évaluer maanaam collaborateur Netanyahu nee nañu Netanyahu dafa doon falsifier relevé téléphonique yi sax depuis le 4 le 7 octobre donc gis nga li yëpp ci destitution la dem lu nag mi ngi nommé ay débutant débutant la nommé ci maanaam armée américaine bi nga xam ne mooy bi gën a puissance pente wala bi gën a ab doole ci euh, euh, adduna bi muy Pete euh, Hegseth nga xamante ne ni moom ci jëmu boppam major la woon ci armée américaine xeex na Afghanistan xeex na Irak waaye loolu doolul dafa laaj surtout première armée au monde entre guillemets ñu war a koo mën a am kii euh, euh, euh, ku ko ku ko jiitu dafa jiite dafa war a nekk koo xamante ne ni ku am xam-xam am grade am vécu bu bu bu bu am solo waaye nag c'est comme ça toujours groupement de dof comme nu ma wax rek ay genre trompe yi dafa baax nit ñi am ak ñoom relation ci ci wàllu xeex parce que de ñoom fi ñuy jëm dañ la koy wax te dañ la koy won waaw fu ñuy signaler fa la ñuy dem Euh, direct moo nekk loo xamante ne ni lu am solo waaye nag nouvelle boobu neexul ñu bari ci militaire euh, américain yi waaw waaw donc avec plexité ak inquiétude tiitaange sax ak jaaxle njàqare la ñu jële décision wu Trump boobu ñoom waa Pentagone ak ñu bari ci classe politique euh, bi nga xam ne ñoo topp wàllu stratégie militaire foofu ci États-Unis donc parce que lu tax dafa Trump dafa bàyyi ay pois lourds ci sécurité nationale mu jël koo xam ne modeste officier la boo xam ne garde nationale sax la nekkoon euh, euh, euh, ñu xam ko nag ni ñu ko gën a xamee mooy ci cercle conservateur yi donc loolu mu nekk lu doy waar nga xool ki beneen wàlla kii di le ministre israélien de la défense muy Israël Katz moom ci jëmu boppam dafa weddi ma moom mi nga xamante ne nii Eh, muy Gideon Sarr Gideon saar daf ko weddi waaw ci lan mu ne accord de cessez le munul am waaw il faut que rek ñu wañ loxo ki nga xamante ne ni moom mooy Hezbollah ñu ngi leen di xaar mu waxaat beneen wàllaa ne ak moom comme léegi mooy le ministre de la défense fi mu nekk nii na Iran xaar pour ñu attaquer installation militaire mi donc ñu ngi koy xaar aussi ci loolu incha allah bu baaxte bu mu euh, euh, yéex waaw wax ne aussi. ak de cessez-le-feu fa comme ni ma ko waxee sànq du am mukk dañuy continuer di guerre looloo ko xaw a xawoon a wokkuloo bopp ki nga xam ne mooy chef d'état major général bu muy Halevi ki Halevi Herzi Halevi donc euh, euh, télévision Israël muy canal 12 wax na ne euh, comme ni ngeen ko xamee Katz moom moo succédé moo wutu Yoav Galan donc occasion boobu la jël pour critiquer Eh, eh, eh, maanaam yenn choix yi nga xam ne dëtu jotuñu ko def parce que nee na actuellement Iran ci jëmu boppam dafa vulnérable maanaam moo gën a nooy sax mburu mburu mburu nooy bees la waaw donc attaquer ay installation nucléaire du am benn problème waaw donc moo tax mu ne objectif principal bi mooy contre carré Iran éliminer menace bi nga xamante ne nii moom la buggoon def pour anéantir Israël autorité iranienne nag ñoom ci seen jëmmu bopp nee nañu dóor bi ñu nar a Israël Israël euh, dóor Israël kooku ñu ngi koy waaj bu baax a baax a baax a baax waaw donc euh, euh, te duñ ci yokkat duñ ci sonn benn yoon waaw donc loolu mu nekk loo xam ne ay ay ay explication la yu jógee ci kii di ministre de la defence bu Israël donc ci beneen wàlla euh, euh, euh, xam ngeen ne Israël fi mu nekk nii ci mi ngi am problème escalade de guerre yi nga xamante ne nii moom la amee muy ci Liban muy ci Gaza fi mu nekk nii daf ko sonal ak yi nga xamante ne ni dafay jóge ci Irak ak ci Syrie ak ci Yémen te loolu musuta am actuellement nii mi ngi indi problème bu mag ba tax na ki nga xam ne mooy chef d'état-major bi demoon na ci Euh, bërki démb fi nga xam ne moom mooy golaan ak ci fi nga xam ne moom mooy Golan euh, euh, surtout dem foofu parce que Galilée ñemewu fa àgg Golan la dem bi mu demee golaan pour xool li nga xam ne mooy musiba jëje yi nga xam ne am na fa te xam nga ñoom it bu ñuy dem dañuy dem en cachette bu ñu demee ba pare la ñuy doog a wax ne dem nañu parce que sinon rek Euh, euh, euh, musiba fekk leen foofu moo tax toujours ci média israélien yi ci revue de presse bi toujours mooy chefu cabinet bu Netanyahu nee na dinañ ko def enquête tey pour xool fuite yi fan la jóge ci maanaam bureau Netanyahu ba mu agsi fi mu àgg xam nga waxoon naa leen am na benn vidéo boo xam ne dañ ci wone ay jëflante bu doy waar diggante maanaam kii nga xam ne mooy médecin la ci ci personnel lu Netanyahu ak kii di Yoav Galan ci di yoos kii di ubbi donc mu nekk loo xam ne lu doy waar rajo militaire Israël ba tey nee na euh, euh, président au conseil national de sécurité muy Giora Elan nee na quatre vingt pour cent ci ci ci li nga xamante ne ni moom mooy ci succès yi euh, mu Israël munu ko am lu dul ci politique mooy maanaam. donc 10 pour cent la donc ñu ngi koy dóor waaw waaw parce que ci ci wàllu négociation bu doon 60 70 pour cent la am kon yi day nekk militaire ci processus militaire waaw la koy am bu ko defee 70 euh, yëpp nekk processus politique ci négociation mais donc loolu day wane avis que ne ñu ngi leen di duma bu baax te seen liggéey fi mu nekk nii faraj faraj yi euh, euh, sonal na ko donc moo tax mu wax ne. Euh, euh, euh, lii kii bi wax le ministre de la défense noonu nee na ay gént la waaw loolu ay gént la parce que bokkul ci objectif de guerre surtout fu ñu toll nii ak implication yi énorme yi ñu am ñu naan Hezbollah da ngay génne ay armam te yow moo la ëpp doole fi mu nekk nii mu ngi lay faagaagal moo tax ki nga xamante ne nii moo doon gisu leen ko Isaac wala Israël Katz bi muy wax te nekk ak chef d'état-major général des bi bi muy wax ba àgg foofu daf ko euh, euh, maanaam euh, doon mel ni ku koy xeelu di wokk bopp bi ak yooyu donc ki nga xam ne mooy général de réserve Tamir Hayman nee na actuellement ñi ngi fay lu seer a seer a seer a seer a seer ci sud Liban fi mu nekk ñu ngi ñu yóbbu laaxara guddi ak bëccëg Maarif beneen journal israélien na nee na lépp lu ñu mën a wax daal mooy ne Israël lépp lu ñu mën a wax ne fi mu nekk nii mi ngi dundu guddi ak bëccëg yoo xamante ne ni yu doy waar la ci moom waxuñu leneen waaw actuellement li nga xam ne mooy brigade Golani dee la guddi dee la suba dee la ngoon dee la gannaaw suba maanaam chaque jour rek ñi ngi eh, eh, eh, ñi ngi leen di rey da gis nga bu mujj bi te di 17 morts am ci démb dañ leen bàyyi iri leen ba ñu dugg ci benn bâtiment ñu bàyyi leen ba ñu dugg ñu fekk leen foofu fekk ñoom da miine nañ ko ba daw dugg ci benn tunnel dem te seen tunnel yooyu c'est très grave mënuñu ko gérer noonu la ñu def ñoom ñu yaakaar ne ñu ngi ci biir pour ñu fekk leen foofu bi ñu foo leen fa fekkee fekk ñoom dem nañu ci lañu leen dawal nag indil leen li nga xam ne moom mooy musiba bi ñu exploser leen donc mu nekk loo xam ne ba ni may waxee nii di 17 morts ak presque entre 30 jàpp 40 euh, euh, euh, blessés donc kii di nomination Trump Trump ci jëm boppam. ñi mu commencé ñoom yëpp mooy képp koo xam ne yaa gën a bëgg Israël yaa gën a bañ araab ak jullit rek la commencé nommé ba ki nga xam ne moo doon ancien gouverneur Arkansas ñu xam ko ci Inde bi mu am ak palestinien léegi moom la def sax ambassadeur fii nga xamante ni mooy Washington bu Washington foofu ci Israël donc euh, euh, euh, mu nekk koo xamante ne ni dina dina dina jëli poste mais keneen koo xam ne Huckabee Hucaabe aussi nga xam ne mbëggeelam ci Israël dafa ëpp euh, euh, moom it euh, mu nekk koo xamante ne ni dañ ko nommé pour que mu mën a yor lépp loo xamante ne ni mbiru lu rattaché wu ak Israël la moom sax moo ne woon si Jordanie bokkul maanaam dafa war ñëw bokk ci Israël xam nga moom mooy Judée ak samari fi naan ad-Duffa al-Gharbiyya xaliil Euh, Jéricho yeneen yi demee noonu yëpp foofu mooy Judée ak Samari nee na lo mooy non juif bi nga xam ne moom lañ ko jox yooyu yow ci yahud yi ñoom ñoo ko moom waaw donc si Jordanie warul sax exister donc euh, amul benn communauté bu fa mën a dëkk wala ay quartier wala ville lu dul dafa war a nekk ville juive donc euh, ki nga xam ne mooy Mike Okabe moom jëmu boppam xam nañ relation yi étroite yi nga xam ne moom la jëf ak moom la nekk ak ak ki nga xam ne moom mooy euh, waa israel te ak aussi cawarte gi ak mbëgg gi ak cofeel gi nga xamante ne ni bëgg na ko israel waaye aussi groupe yi nga xam ne yëpp dañuy pare pour détruire masjidul aksa daf leen di euh, euh, soxlawoo aajowoo moo tax li yàlla wala yu tabbiru ma alaw ci suratul isra ni li ñu tojoon jëloon ci ci ci wala yadxul al masjida kama wala yadxul al masjida kama daxaluhu awala marratin wala yu tabbiru ma alaw tadbira aaye boobu ci suratul defe naa huit la wala sept ci suratul isra gis nga mi ngi commencé di confirmer maanaam équipe bu ki nga xam ne moom mooy Trump maanaam ñi nga xam ne c'est des sionistes ex pur et dur ñoom la jël ñoo xam ne ñoom ci seen jëmu bopp dañoo war a toj li nga xamante ne ni moom mooy euh, euh, euh, masjid bi parce que ñii ba tey dese nañu am am ñame gi ak audace bi waaye ñii yaakaar naa ne li alquran doon wax dëgg dëgg dëgg dëgg donc deux mille vingt cinq bi ci la ci la mbir yi di di am boo sàggoon muy juróomi nag yooyu ñu rey leen def ko pënd tuur ko ci atas ko ci ci ci jaww ji bu ko defee mu déclenché li nga xam ne mooy xeexu Armageddon mooy entre le vrai ak le faux ki nga xamante ne ni aussi rabin bu extra ki eh, moom ki nga xam ne mooy Hogabe moom ku jege rabin li bu likud bi mu Yehuda Glick nga xam ne moom mooy leader bi gën a doy waar ci wàllu maanaam eh, eh, pour rek ñu yàq Beytul Maqdis donc moo tax ñuy laaj le sionisme est-ce que du dem ba mujj sax attaqué poussé ba ñu ba ba ñu rey ko ñu assassiné ko ba maanaam du jeex waaw parce que li mu nar a jur ni ay inimitié lay jur yoo xamante ne ni yu doy waar waaw ay défi yoo xamante ne ni euh, euh, euh, question palestinien bi moom la nar a amee te bu ko defee dafay nekk loo xamante ne lu doy waar te bu bu fitna juddoo kenn dootul xamati lu nekk parce que boo xoolee ku mel ni sénateur muy Marco Rubio mu def ko secrétaire d'État kële mu def ko maanaam koo xamante ne moo yor dossier Palestine yi ñii mu jël leen def leen ambassadeur foofu nga xam ne ñëpp ay sioniste lañu jël ñoo xam ne ay évangéliste lañu def leen li mu leen def del secrétaire d'état nga xam ne wàllu défense ak yooyu yëpp Pentagone dénk ko Pete Hexen xam ngeen ne fi ñu jëm foofu du nekk lu neex ci beneen wàlla organisation juive yi nee nañ bu bu Néerlande muy Hollande nee na supporter Maccabi bi xam ngeen tey la euh, quatorze euh, kii 14 euh, euh, euh, novembre mooy seen match France Israël ak musiba yu mu nar indi ñoom juifu organisation juifu waa Amsterdam nee nañu waa Maccabi ñoo tooñ waaw Maccabi ñoo tooñ ñoo tooñ parce que lii instrumentalisation la woon pour que kii nga xamante ne ni moom mooy Israël yóbbu près de 3000 supporters. pour victimiser boppam indi affaire u ay yu kenn xamul antisémitisme euh, euh, ñoom d'accord ñu ci lool ñoom juifu Amsterdam loolu nag mu nekk taxawaay bu am solo beneen bi mooy Émirats arabes unis mu ngi proposer Trump benn plan boo xam ne pour que ñu gën a attaquer ñu attaquer Yémen parce que li Yémen di def pour ki nga xam ne moom mooy benn Zayed loolu dafa nekk loo xam ne lu garaaw moo tax. Euh, benn saayit ñu ngi koy laaj euh, ana ku ci góor wala jigéen moom ak euh, beneen waay bu ñu tuddee Georges Nader nañ ko laaj nañ ko ko laaj boo demee ci net bi am na fa ay vidéo yu compromettante yoo xam ne mi ngi ci moom moom mi nga xam ne yaa ji yahudiya la boo xam ne d'origine iranienne waaye ñu jóge Yémen parce que waa Ali Nahyan ñoom d'origine yéménite lañu tu waaw donc te yooyu sax bu ngeen demee ci net bi di ngeen gis am na yoo xam ne sax dafay avoué foofu waaw maanaam loolu nga xam ne mooy nekk ñu tuddee euh, kii wax sama càmmiñ kon <laughs> kan la war a doon waaw donc euh, euh, ci jëmu boppam nee na tey ci démb ci mercredi bi États-Unis d'Amérique wane na maanaam ci coulisses yi benn offre boo xamante ne émirat moo ko jox États-Unis pour que Euh, euh, euh, mu lancé ay bataay contre sana contre les Houthis waaw de source diplomatique nag ak médiatique rapporté nañu que plan boobu biñ ko présenté ki nga xam ne mooy le président des états nations unis Mohammed kii bu émirats arabes unis Mohammed Ben Zayed moom moo ko présenté américains yi ci benn appel téléphonique boo xamante ne ni waxtaan waxtaan na ceeg ak président Trump gis nga tëb na déjà ki nga xam ne mooy Biden source yi nag dañu révélé ne euh, plan bi nga xam ne moom la ñu prévoyé euh, euh, mooy ñu def fusion ak coalition ak ñi nga xam ne ñooy jóg ci ci gardien de la prospérité mooy seen coalition boobu di attaqué Yémen ñoom ñëpp ñu dajaloo jëlaat pays yi bu ko defee pays yooyu yëpp ñu nekk benn mu nekk une alliance militaire commune boo xam ne day protéger la mer rouge maanaam Bahrul Ahmar moom la ñu tuddee Bahrul Kalsoom donc mu nekk dana mën a bàyyi maanaam liberté wu navigation maritime ci foofu donc bokk na ci clause yi maanaam li nga xam ne moom la ñu d'accord tomb yi moom mooy implication direct na États-Unis gën a dugg ci opération militaire yi conjointe foofu ci Yémen bu ko defee mu nekk projet boo xam ne jubluwaay bi mooy euh, euh, euh, dinañ ville de Hodeida ñu raaf ko bu ko defee mu nekk dernier port bi nga xam ne ci mer Rouge dootul amati doole fu mu mën a e, samp ay ay ay ay batoom wala yooyu di laal donc gis ngeen e, e, cynisme bi waaw te yow yow xam nga ne amerique démb lañu ñu toj ñaareelu ba gannaaw Elizabeth bi moom mooy ñaareelu porte avion ba daw na ba daw na dem ba dégg yaa ngi dégg ñu ngi naan dinañ indi beneen gaa yi ne leen bés bi ngeen indee beneen di ngeen xam ñu def nii noonu la ñuy def yeneen yi donc loolu mu nekk loo xam ne xam naa si les surfaces d'urinage yi maanaam ki nga xam ne mooy jax-jaxi ci xolu nit ñi gis nga ko moom mooy euh, Mohammed Ben Zayed moo tax malheureusement ñi gën a rafet tur léeg-léeg caay-caay gi ci ñoom lay gën a fare am tur bu rafet waaye boo jëfee rek gaa ñi ne ak cam moo tax alliance boobu du dem fenn parce que déjà xam ngeen ko ci jamono Biden soxla woon na nit ñi ñëw jàppale ko waaye nit ñi dañ cee d'accord Émirats arabes nag xam ngeen ne euh, euh, euh, dañu benn ci pays la comme ni ngeen ko xamee bëgg na lool influence mutu boo xamante ne daf koy bëgg ci fii di maire rouge mais moom bu mu yàkkamti parce que émirat irakien yi ñoom ñoo na a jël maanaam moom malgré que waa Yemen dinañ ko duma waaye émirat ñii di irakien yi xanaa dañ leen téye rek waaye émirat daf ci irakien yi pare def nañu seen plan ba pare pour faagaagal kii di Dubaï ak ak émirat de manière général donc moom laa leen waxoon démb fi mu nekk nii moom dafay bëgg a njëkkante ak Arabie Saoudite pour le leadership ci wàllu seen li nga xam ne moom moo indi idée bi moom moo signé njëkk a signé affaire Abraham yi mooy ittifaqiyaatul abrahamiya donc bii aussi plan indi na ko donc pour suufu Arabie Saoudite bi nga xamante ne ni moom moo créer woon keroog le 11 euh, conférence extraordinaire. OCI ak euh, Ligue arabe ñu daje te fekk yëpp mise en chaîne la gis ngeen critiques yi dans le monde arabe ak yooyu niñ ko niñ ko defee pour wane rek ne États-Unis yow man mi maay sa interlocuteur et effectivement États-Unis Arabie Saoudite lay jël parce que moom mooy la la capitale religieuse islamique euh, euh, du monde donc mu nekk ndax ñaari xaramay nii ak sharifay nii xabru rasul sallallahu ak kaaba gi te kële malgré que moo gën a dynamique moom émirats arabes unis mais amul boobu envergure émirats arabes unis amul histoire histoire am ci Iran la bokkoon tu donc Iran moo ko euh, rétrocédé euh, britannique yi donc euh, mu nekk loo xamante ne ni lu doy la loolu nag moom ci jëmu boppam moom kii di émirat loolu nga xamante ne bëgg na ko bay dem sax gis nga am na ay îles yoo xam ne sax. mu ngi ko occupé comme Sumatra euh, euh, euh, ci ci ci à deux cent kilomètres ci côte ci Aden mu ngi ko occupé waaye yooyu yëpp ñu ngi koy xaar parce que dañuy régler yi nga xamante ne ni mooy gën a mettre di plus compliqué au simple loolu du poser benn problème incha allah donc moo tax war nañoo gis ne foofu que ne Émirats arabes ci jëm boppam mi normalisation ak état sioniste muy Israël ci époque Donald Trump gis ngeen ko tey. mi ngi gën a góorgóorluwaat lépp lu Israël soxla rek mu jàppale ko ci moo tax euh, euh, euh, ci fi ñuy jeexale li nga xam ne moo tax sax actuellement ñoom pays arab yi ñu gën a tiit surtout ki nga xam ne mooy arabi saoudite mooy loi jasta loi jasta xam ngeen ne le 9 septembre 2016 congrès américain bi dafa adopté woon benn loi bu ñu tuddee jasta jassa mu nekk nag loo xam ne ñi nga xam ne ñoo doon victime les attentats de du 11 septembre 2001 mooy ñaari tuwa tu tu tuwa yi muy ñaari jumeaux yi euh, euh, les tours jumelles yu New York euh, ñoom dañu demoon ester en justice le gouvernement bi nga xam ne mooy bu saoudien yi pour ñoom ñi nga xam ne ñooy victime les ayants droit waaw ci opportunité ñu jël les juridictions américaines pour ko ñu pour poursuivre euh, Arabie Saoudite pour domage et intérêts euh, ak mbooleem état yi nga xam ne dañ cee dugg waaye ki ci jiitu moom mooy Arabie Saoudite parce que Arabie Saoudite dix-neuf auteurs yëpp ci Arabie Saoudite lañ jóge waaw yi daaneel euh, foofu parce que ñoom ak yahud yi xam nga benn la manipuler leen dafay yomb donc moo tax ñoom ñoo ci gën a sawar ñoo ci gën a sawar ñoom salafiste yooyu ñoom ñoo ñëw euh, euh, attaqué rey ci ñi ciy rey trois mille et quelques donc euh, am na ci ay égyptiens ak yeneen petite ay nationalité yu ndaw léegi nag pays yooyu yëpp nag dañ leen di naan dañ leen ne da ngeen di fay te Arabie Saoudite rek trois mille et quelques milliards de dollars la war a fay donc mu nekk loo xamante ne ni lu lu lu lu doy waar donc loolu nag ci jëmu boppam famille victime yooyu actuellement euh, euh, xam ngeen ne ci 2016 ba léegi ñi ngi doon topp ki nga xamante ne ni moom mooy euh, kii di Arabie Saoudite ak certains pays arabes moo tax ñooñ seen jëmmu bopp fi mu nekk nii lu leen kii wax rek Amérique wax rek ñu ne gongo fittasu waaw donc loolu moom moo tax malgré que ñi ngi interjeté appel mais dañ ko rejeté dañ ne il faut que ñu fay donc ci jamono tromp la donc trompe bu ñëwee pour lii loolu dafay nekk loo xamante ne ni lu ama am solo donc mbokk yi foofu la ñuy yem ak yéen tey di leen jox dog daje incha allah di am mbégte lool ci ànd bi di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di ñaan euh, euh, euh, ndam pour waa Gaza waa Hezbollah waa Yemen waa Irak waa Syrie ak waa ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy euh, euh, Iran donc ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci Mouhalim Info International ñu ngi leen di nuyu di leen ziarewaat di wax ne ku mën rek euh, ñu yokk ci sunu sëriñ su baax si di Sénégal li ñuy wax di ko ñaan guddi ak bëccëg te ñu ngi ciy gis maanaam changement bu mag a mag mooy eh, am na benn secret alam tara kayfa waaw waaye bii di inna eh, kii tabbat yadaa tabbat yadaa daal waa kër yonent bi sopp nañ ko lool ci seeni noon waaw donc lu met tabbat yadaa def ko saa ne eh, benn yoon sax baax na waaw parce que courant six volt beeg soixante dix mille volt bi foo ci laal dalay maas waaw donc def ko benn ak juróom-ñaari Eh, tabbat yada ñaan yàlla alak Israël Amérique ak ñi mu àndal loolu dina ci baax lool qul ma yaaba rabbi eh, lawla kom neel sama borom nee na bu fekkonte woon na ne du dul ñaan yi bu dul woon ak ñaan yi ngeen koy ñaan du leen faale waxul seen julli yi de waxul seen jàng alquran waxul seen dem màkk waxul seeni saraxe ak yow dafa ne bu ngeen ma dul woon ñaan duma leen faale donc nag obligation la pour ñu ñaan tey béyaat encore ci ñi nga xam ne woo nañu ci dernière vingt quatre heures yi muy ñu bari ñii ne dañoo bëgg a joxe seen xaalis ñu ne leen fi mu nekk ni ubbeeguñu dara ci mbiru xaalis waaw ñii ne bu ñu xamoon ñoom fan la ñuy dem recruter wu am na sax ñoo xam ne bitim réew lañ nekk waaw di laaj est-ce que am na fu ñu mën a dem ñu recruter wu xam naa ñooñu seen yaram moo gën a tàng ko suñu bos yi ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp fu ñu mën a nekk Euh, troupe yi ak yooyu doy na sëkk sëkk sëkk matériel bi doy na lépp doy na te Israël gis nga nii mu ngi koy gis donc ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare waa Mouhalim Info International wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu wéy di leen fàttali xam ngeen ne baaxoon nañu ànd ak ci xabaar yi ñëw bitim réew seen technologie ki jaara bu di yëngu ci wàllum médecine traditionnelle seen waa seen appareil analyse xarañ bi nga xam ne junni rek ngay déggee ticket te solo ci ko appareil bi lépp luy wéet yaram sa tànk ba soof mu génn la tu ñu noppee nag fajal la ko mu bokk nag yéen i faj jabet asthme fibrome kyste prostate règle douloureuse hépatique rhumatisme trouble digestif nerf sciatique impuissance hémorroïde interne externe ndoxum si articulation waaye itam seen fauteuil massage bi nga xam ne daal xarañ na lool baax na lool ña fay dem itam wax nañu ko nañu daal am na sutura da nga ñëw toog mbësal yaram képp ku yittewoo lu mu bëgg def consultation ngir xam weer yi nekk ci yaramam numéro baa ngo 77 336 33 65 wala 66 391 17 36 fi ngeen mën di nekk ci euh, Sénégal muy ci Touba Iliport ca Dakar Ngor route des Almadies ca Mbour Carrefour Saly ca Saint-Louis ak ca Ziguinchor ak ca Kaolack wala bii nga xam ne kon seen am na fa fi rek mën ngeen a jokkoo ak sama maam Jaara Buso ci numéro boobu ma jox leen hamdan liman yafalu